monsieur le président ak mboolem autorité wu Sénégal kàddu yi jëmm ji yëkkati day yaakaar naa ne buñ ko bàyyee mu jàll rek yebeel dana dugg état bi interdit ay rassemblement kii mën a dajalee dajaleb réunion moom Oustaz Sall mii ngeen gis ko ba noppi noo seulement lu état bi interdire la def ba noppi loo xam ne diine nanguwu ko ci jamono joo xam ne dañu ne ab feebar am na ñu war a taxaw ku ci nekk maandu ngir man koo bañ a jox sa morom mu xëtt ndigal yooyu yëpp ba noppi teg ca nag taxaw di saboote ñi nga xam ne ñooy kilifa diine di saboote réew mi njortu naa ne kii ku ñu war a mën a teg loxo la yóbbu ko ci yoon pour que lii nga xam koy def di xeetu mën a jur lu nekk nag ci réew mi mu man ko arrêté loolu moom wax dëgg yàlla ñi ngi ci woo kilifa yi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk jullit yi seen mbokk Oustaz Oumar Ahmed Sall moo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal di ñaanal ñépp di wax ni yàl nañu yàlla musal ci jàngoro bii di covid 19 muy corona yàl na ci yàlla musal bépp jullit ak kudul jullit naam nattu la ndax nattu bu ñëwee rek yëngal xol yu bari ñi ci ragal danañu feeñ ñi ci yore jikkoy naaféq danañu feeñ yàlla nañ ci yàlla musal ñi ci yore jikko ju baax danañu feeñ jamono bu nattu amee rek kenn ku nekk day ubbi gisiinam ñiy profitoo pour yàq-yàq ñiy jóg pour defar di defar donte ñiy defar bariwul ñiy yàq ëpp li ma bëgg ñëw mooy ci huit ba léegi maa ngi resevoir ay coups téléphoniques yii par individuel la Europe ñenn ñi fii ci Sénégal di ma laaj ñaari question yu wuute benn bi ci wàllu gént la ak digal buñ ci joxe ci ñenn ñi waaye benn bi di kàddu goo xam ni am na ay nit yu ko yëkkati dama jàpp ni nag xëy na soxor moo leen jàpp yal leen yàlla dimbale dimbale ma ak it mer tax na bi ñuy wax contrôlé wuñu ca la ñuy wax ndax wax ji mooy Oumar Sall dafa def benn waxtaan ne di dal kilifa diine yi war nañ kee wax ndax gouvernement bi dafa tere dajaloo yi wax ci xëy na wax ji mu bëgg a wax ak li mu yéene yéene mu ne brigade de recherche dañ maa war a woo wala dik dañ maa war a woo ndax li ma wax lu très dangereux la bi ma ko dégloo teniruma ko en mais dama dem ba ci yàgg yenn sit di ma woo ñenn ñi di ma woo ndax dañ laa convoqué wala déet ma ni waaja man de maa ngi nii di naan deuxième toog ci sama place loolu nag yëkkati ma war a tontu ndax man du may tontu waaye kooku di wax ku ko déglu xam leen ni àndul ak xelam lan moo tax wax balaa nga koo wax da koy vérifier darsu tafsir bi mi ngi nekk. samedi je crois le 14 mars samedi le 14 boobu le gouvernement bi génn ci suba si. sur proposition du comité national de gestion des épidémies j'ai décidé premièrement de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. pour une durée de trois semaines à compter du lundi 16 mars 2020. le 14 boobu ci laa ñëw def tafsir Castor defuma tafsir ndax dama daan toog def tafsir nit ñi bari ma leen di jox dernière kàddu bi ndax bépp mbir moo xamante ne dafay indi ay mbooloo te nga xamante ni ragal nañ ñi fitna la ndax islaam moo jàngale précaution yooyu yonent bi moo ko jàngale wax naa ko démb sama xutba mooy fépp foo xamante ni épidémie am na na nit ñi moytu di dugg ñii di génn loo xamante ni mën naa ñëw waxtu nekk nga jox ko sa moroom doo xam lu tax nga jox ko ko kon ku nekk ci ñun day bàyyi xel ku nekk ci ñun na bàyyi xel te ñu ñaan yàlla bu ñu jàpp mukk mukk liy waxi dof yi di wax yenn yi fanatique la waaw yàlla lu mu dogal mooy am dëgg la mais yàlla moo miy dogal moo ni nañu moytu yàlla miy dogal moo ni nañu def attention yàlla miy dogal moo ni nañu moytu jotaay yu mel noonu lu mel nii nag bu amee nga xamante ni président de la république jël na xaraar boo xamante ni wallahi karaar bu ñëpp ànd la man de gëm naa ne lu baax la lan moo tax lu baax la moom mooy lépp luy indi jotaay ak daje nañ ko moytu nañ ko moytu école yi privé yi même ba ci daara yi suñu mënee moytu trois semaines yi mu wax te ñuy ñaan yàlla mën na ko tegge beneen bi mooy jotaay yi man de imam dama jàpp ni incha allah darse bi damaa yaakaar gis ni mën nañ ko at pour l'instant feeg trois semaines yi ñu wax imam waroon naa cee waxtaan ak yéen nag waaye damaa jàpp ni su fekkee dañuy bañ yu mel noonu ñun dañoo weex dunq ñun lu ñu laal dafa yomb comme dañoo weex dunq nag nañu moytu bu fekkee boroom xew-xewu diine yu mag yi ñoo commencé arrière di tiit ñu nit kon waruñu jéem a dugg ci sabab yu mel noonu moo tax ma wax ni incha allah dars yi bu ñu paree ñu waxtaan ci ñu xool ñu jéem ko ak donte benn durée te ñaan yàlla ku nekk ne nekk ci néegam di ñaan di julli man samdi boobu ci laa dakkal sama lépp ci laa waxit lii ma doon wax xëy na ku ci mer dangaa mer rek wala nga meral sa kilifa te ànduloo ak xel waaye nag kuy mer da ngay ànd ak sa xel nag balaa ngay wax ni procureur woor Umar Sall jàppal Umar Sall da ngay teey ndax procureur bi ñëpp la fi nekkal état bi ñëpp la fi nekkal du waxi waajooju mooy tax gouvernement di ma woo wala état du ma woo ndax xam naa ni man maa ko gën a bokk ci état ndax li may jëriñ état ak li may defal état moom xamu ci dara dafa nekk ci ay nelaw yàlla na ko yàlla yee. ñaareel bi moom mooy bi ñu décrété affaire bi dañ lëndi lay départ en vigueur lundi boobu moom moo doon nekk le 16 le 16 la tere bi départ en vigueur parce que samedi la tombeel man samedi boobu laa waxtaan wax ci li ma ci wax nag ci waanatil wujuh lil xay qayyum xëy na daa nekk sëriñ wala ñu nekk sëriñ mer ci wax ji wala li ñu tere am ñu mu laal ñu mel leen mais man maa njëkk bokk ci tere bi ndax ku déglu video yi di nga gis ni wax naa ni man darsi yépp aj naa ko darsi yi ma doon def ba ci école franco bi sama bi ma yore ci sama kii dama koo tëj lépp lu état bi tëral dama koo def sama école franco daarul bir dama koo tëj liggéey yu ma doon liggéey ci wàllu mbooloo dañu koo tëj te loolu ba ma koy def ñoom taxuñu waaye ànd ak état te lu muy digle yoon muy jëriñ ñëpp ma ànd ci defee lu mel noonu kon loolu man tere woon naa ko kon nag bu nee dañ maa war a woo damaa jàpp ni soxoor moo ko jàpp ak iñaan rek te buñ ma woo itam dama defe ne loolu du ko yokk dara du ko yokk dara xanaa dañ naan woo nañu ñee rek nañu ko woo li tax nag ma bëgg a leeral lii mooy ñenn mbokk yi déglu ndax groupe whatsapp yi ak yenn sit yépp wax jooju mi ngi leen jaaxal ndax waa ji waxu soxor bi mu wax ak waxu iñaan bi mu wax looloo tax ñemewul présenté wu parce que dafa ragal man lépp lu may wax damay taxaw ci mbooloo ñu caméra ko wane ko mais boo taxawee sa ginnaaw clavier wala sa ginnaaw audio wax say wax loolu ku ragal moo koy def mu musu leen dégg nag ma tontu du ma ko def ñaare bi li ma wax nii pour rumeur yi mu créé ñenn ñi bàyyi xel xam ni kii seytaane buy jaxasee la maa koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jubal jubal ñu ñaareel bi mooy ci wàllu gént bi ñuy wax dañ ma woo di ma woo ba dama sonn ñu ne lañuy wax ni am na ku gént ne boo ubbee suuratu baqara di jàng page par paase di nga gis benn kawar kawar boobu ñu jël ko naan ko li ma ciy tontu ñaari mbir la bi jiitu mooy gént la gént du àtte ci islaam gént du àtte gént du atte ki ko ki ko gént moom la concerné weddi lu ma ko géntam weddi lu ma ko ndigalam tere lu ma ko ndigalam waaye li islaam jàngale man loolu laay wax ñaareel bi kawar kawar goo xamul fan la jóge nan nga koy jëlee di ko def ci ndox di ko naan yaa ngi soxla hygiène yaa ngi soxla wér gi yaram yaa ngi soxla ay tegtal loolu ndax xel nangu na ko ñetteel bi ñi ne gis nañ ko waaw dëgg la mën na nekk gis nañ ko waaye ndax gis nañ ko dafay tekki lu alquran wax wala sunna wala dëgg la loolu dañ koy jàngaat ñu xool ko kon nag mbir moomu lu ne mën na ko def parce que bul toog ne rek damaa ubbi sama kaamin ma gis ko waaw li ko mën a def ci ay shayatin dafa bari kon kàddu googu foofu laa ci yem di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq seen mbokk Oustaz Oumar Sall assalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi wa barakatuhu jazakum allahu xayran wa aafana allahu wa aafaakum salaamu aleykum wa rahmatullah